sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal yàlla nañu yàlla nangul suñu koor ak suñu jaamu yàlla yépp tabaarakallahu desiwaat nañu itam ci tafsir bi ñu doon def ci Hann TV ci jumaa ju Hann Capa hmm. ci seen mbokk Omar Diallo di leen ko defal ci waxtu yi ñu ngi ñu ngi ci suuratul baqara ba tey ci aay bi nga xamee ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ne may aaya deux cent trente trente fi yàlla di wax wal waalidaatu yurdi'na awlaaduhunna xawlayni kaamilayni liman arada an yutimma radaa yàlla ne wal waalidaatu waay jur yi yur dee na nañu nàmpal na seen doom seeni doom xawlayni kaamilayni ñaari at yu mot liman ñeel ki nga xam ne araada walla liman ñeel na uh, liman ñeel na ki nga xam ne araada namm na an yutimma muy motal arradaata nàmpal ga walla ziyaadata alayhi du ci yokk dara ba tax na yàlla wax ne waajur yi nañu nàmpal seen doom nañu leen nàmpal ñaari at yu mat ñaari at yu mat nag ñaata weer la hmm? ah? waaw 24 mois ci ki nga xam ne bëgg na nàmpal doomam diir boobu ba mu motal sëkk te du ci yokk dara du ci wàññi dara bismillah léegi nag foofu la ñu wuute ñiy wax ne planning dagan na walla palaaning araam araam na waaw su ko defee Euh, jigéen joo xam ne dafa am doom te bëgg nàmpal ko ñaari at yu mot yàlla wax na ko yàq alquran nañu nàmpal seen doom yi ñaari at yu mot léegi nag yow mi bëgg nàmpal sa doom ñaari at te dangay nef hmm? ngay def noy def da ngay def planning da ngay def planning pour mana nampal sa doom ñaari at balaa ngay ëmb ci diggante bi wala da ngay bàyyi noonu rek risque mun na am nga ëmb doo ko nàmpal ñaari at yu mat su ko def loo gis loo gis garab yi sa garab pharmacie yi sax am am na ay effet secondaire lu noonu ngeen koy wax ci tubaab effet secondaire léegi nag planning baax na nan lay baaxee planning dafay valable ci koo xam ne couple couple couple laa wax laa wax de couple planning dafay valable ci ñoom su ñu bëggee nàmpal seen doom ñaari at yu mot dégg nan la ñuy def planning amoon na fi planning familial amoon na fi xam nga nu ñu ko doon defe waaw kay soo amee soxna muy sëy si sa kër mu am doom yaayam mooy ñëw jël ko yóbbu ko këram dana fa nekk ay weer mun na fa nekk at mu soog a del siwaat si ci yow xam luñ ci jublu pour jàppale ko ci xale bi jàppale ko ci boppam moom mooy itam mu mën a noppalu mën a lekk bu mën naan ba yaramam ni ñëwaat parce que perdre na sang yu bari beneen bi pour xañ la ko yow xañ la ko yow su ko bàyyee foofu heure bu amee ñaari weer ñaari weer mu tàggook deret ji soo xiinee ci moom nga jëm <laughs> ah nañ waxante li fi am amoo leneen kat amoo leneen su doon ñi am ñaari jabar ñi am ñetti jabar góor yu baax ñooñu mun nga ko bàyyi un mu nampal doomam nga nekk ci ñeneen ñi waaye nee naa la menn mbubb ku am menn mbubb fóot ko ci guddi fajar soo ko làmbee te wow na wowul nga dënk moom ngay sol am déet wa kay loolu nag façon la ci planning li tax ñu yóbbu ko pour mu bañ a nef loolu du planning bu jëkk dañ doon def téere am na ñu doon def téere suñ la ko takkale feek dindi luñ ko dindiñ ko doo am doom loolu du lu mu doon planning amoon na ay galeen ay galeen boo xam ne suñ la ko takkale dañ koy dindi ci sendal suñ ko dee suñ la ko takkale feek mu ngi ci sa yaram doo am doom loolu mu doon planning am na ñoo xam ne euh, ndeysaan bi ñu demee imam Mansour Sall bu HLM bi ñu demee ci imam Sall di waxtaan ak moom affaire planning dafa man may mais jigéen du nef góor mooy nef góor mooy nef jaay jigéen du nef jigéen moom li mu nef te àndul ak góor du ëmb mag kon góor ay nef góor moo amul fu mu jëm lii rek la am mu dem ci mu nef kon kooku faw ñu wuutal ko pexe pexe nag mooy wuute walla nga def am na ñoo xam ne dañ doon def azlu xamul lan azlu ànd ak ndaw si ba nga xam ne yëg nga sa bopp nga tuur ko ci suuf loolu du planning planning la léegi nag dafa am fon ak forme fon bi moom amoon na fond fond bi amoon na ndagam lii ñu wax ni soo ko laajee mag ñii loo amoon na mu des nag forme bi léegi tubaab bi nee na déedéet jaru ko jaru nga ko tuur ci kii daru ndaw si di ñibbi seen kër daw déedéet xaaral ma defal la loo xam ne mu ngeen ànd te du jël am na ndeysaan benn waay bi la la na mais biñ ko waxee ba pare dafa wax de ah tubaab yi ñëw na nax ñi bëgg euh, population africain yi ah ko su fekkee euh, secondaires lu baax loo gis am na lu ci baaxul su fekkente ne loolu li ma wax nii moo tax waa ji di def planning walla waa ji dañ ko wax ne su ndaw docteur moo wax su ëmbëtee dafay loru la l'islam ama amal na ko amal na ko solution da yow di nga wax ne de amoo solution waaye lislaam moom am amal na ko solution faaw nga am loo def nit mun nañu takk sa jabar moom nu doon nga am ñu ne léegi il faut il faut nga toog deux ans nga mën a ànd ak moom parce que si ànd ak moom ci mu ngi nàmpa par risque la léegi toogal deux ans nga am na ànd ak moom danga ko mën soo demul ci moom fan ngay dem fooy dem xam nga planning ku mu valable ku mu valablul ci moom xam nga ñan la jigéen joo xam ne jànq la célibataire du noonu lu muy doyee palaani jigéen joo xam ne dañ ko euh, jëkkëram dafa euh, deewoon walla dañ ko fase woon cherche mari amagul jëkkër muy def palaani loolu la koy doyee ak koo xam ne jëkkëram defa tukki dañ doon wax loolu benn imaam ne waa ku jëkkëram tukki kay ko palaanin na palaanin na ba pare ko jarul muy naan ki palaanin na wax dëgg yàlla nag palaanin na comme su jëkkër ne wul waa sooy def palaanin am na lu xew du noonu ñii duñu planning bokkuñ ci suñ du dawee nag làqatu ci ah ñoom bokkuñ ci woon mais planning pour benn couple boo boo xam ne dañuy Euh, dañuy dañuy dañuy xam nga arab yi di wax ne taadidu nasab ak tanzim tanzimu nasab tanzimu nasab mooy organiser sa sa njur lislam ba te réewula ko waaye taadid nag mooy yemale yemale man bu naa cinq doom laa bëgg am wàll quatre wàll trois li ci des yëpp nga planning ko bur ak kii l'islam moom d'accordul ci l'islam ci loolu waaye organiser balaa sa jabar jabar ëmb dina dina dina nampa nampal doomam 2 ans te tere bu ko léegi ban pexé ngay def nak pour mu mën ko nampal 2 ans hein? ah xam nga ni dañuy dem rek ah, ki bi di changer mag ñi ko mënoon ñoom ñoo amatul kooku am jëkkër te di am doom te dafay nef su fekkee ne du nef nag jarul def mooy def palaani su fekkee ne dafay nef nag na def palaani ba mën a nàmpal doomam ñaari at yu mat ah au lieu nga koy nàmpal nga waaye loo gis gis nga même docteur yi léegi nee nañu Euh, nañu nampal seen doom yi ci ween ndax am na ferñeent yuy jóge ci weenu yaayam loolu amul fenn amul du nekk ci biberon amul ci biberon bi amul fenn foofu rek la am man am te itam nàmpal sa doom dana tax euh, cofeel gi nekk sa digganteeg sa doom nampal rek a koy wax nampal rek a ko mën hmm? waaye biberon waaw yooyu waaw yooyu yëpp dafay am parce que sa meew def ci yow amul leneen ko mën a remplacer amul leneen lu ko a remplacer ne euh, fi ma demoon population bul fàtte ci jamono ci maam yi dañuy wax ne amoon na fi ay pes amoon na fi ay xuret amoon na fi nas amoon na fi kii pourtant de tubaab yi ngay wax ni ñoom ñoo indi ay ay ay ñàkk ñàkk nit ñi be léegi ay pluviomélie xaw ma ak yooyu yëpp ñoom ñoo koy ñàkk ba xale yi léegi amatuñ ko walla lu néew moo ñoo koy am tubaab yi mu ne leen bañ soo xamee nag soo xamee ne seen pexe nag te nga am ci am ci xam-xam nga yow nga topp sa diine waaye léegi-léegi ñu xalaat xalaat bi dafay ànd ak diine diine bañu ko nga jël ko su fekkee ne diine bañ na ko nag nga catégorie nga bañ waaye nag ñoom ñoo ko indi rek su bane su bonee su baaxee du noonu ah déedéet araam na waaye araamul wax naa ko léegi araam na ci ki ma waxoon amul jëkkër di def planning yow jànq looy planning ah goo xam ne amagoo jëkkër looy planning sa jëkkër dafa tukki looy planning looy planning ñooñu koy planning araam na ci ñoom ki nga xam ne itam mu ngi am doom normal du am doom normal neful moom itam ko warul planning waaye ki nga xam ne dafay wéradi walla dafay nef kooku la planning valable ci moom te loolu couple lay doon diggante jëga jëkkër ak jabar ñu waxtaan ba pare ah man lii ak lii ak man kat lii ak lii ah kon nañ dem ñu dem toog loolu ci date bi ci jotee itam ñu dindi ko dégg nga moo tax yàlla ne wal waalidaatu waajur yu jigéen yi yurdi'na lañu nàmpal awlaada nampal na seeni doom yi xawlayni kaamilayni ñaari at yu mot li mën a araada ñeel ki nga xam ne nàmm na an yutimma mu matal alradaata nampal ga du ci yokk dara wa alal mawluudi war na ci kii euh, ki ñu jural waxul bàyyi de ki ñu jural rek la wax lahu ñeel na ko risquhunna seen wërsëg seen dépense jigéen ju ëmb walla jigéen ji nàmpal ki muy nàmpalal ki muy nàmpalal moom moo war a joxe dépense moom mooy dundal ndaw si te ndax doomam ci ndaw si lay namp wa kiswatuhunna ak koddaayam ci jëkkër ji la war doonte fase na ko doonte fase na mu ngi nampal sa dom yow ya ko yor ndax yor yor yor gi ko yor mooy yor sa dom ah kay ak koddaayam yépp ci yow la war ah ba de deux ans yi mot dégg ba deux ans yi mot bil maaruufi ci njëkk bi qadri yi ni mu àttanee ni mu mën a mën mën a itam duñ ko teg nag loo xam ne mënul mënu ko ndaw si ne na ma jox jéginaire ak ak kii ah, beneen bi ay ganila ay yooyu déedéet ah. waaw waaw lool loolu itam warul ndaw si waa ji daal nim ko mëne moom daal vaccin la mën ah mbasin billaay la mën ah loolu la joxe du joxe lu mu mun ala kulli xaalin daal ci moom la war Hmm? ndax laa tukallafu togguñu nafsan nafsun bakkan illaa wusaha lu dul lu mu attan laatu tudaar waalidatun bi waladiha ndaw si bu mu lor doomam ngir bañ ko na bañ ko nampal dégg nga wala mawludun lahu bi waladihi ki ñu jural moom itam ku góor ki bu mu lor doomam ndax bañ a joxe dépense ci ki koy nàmpalal doomam ndaw si itam bu ñu bu mu bañ nàmpal doomam wa alal waaris war na ci ki nga xam ne moo moo donn moo donn alal ji maanaam daal huwa asabib xale bi xale bi moom itam mun na joxe dépense xale bi nàmp am déet xale bi di nàmp wa alal waarisi war na ci ki nga xam ni moo doon maanaam daal ndaw si amoon na jé boroom kër te mu ëmb boroom kër gi génn àddina génn génn àddina doom ji juddu kan mooy doon alalu baayam du moom waa alal waarisi xale bi itam doon na doonte liir la waaye mooy doon doon na alalu baayam li baayam baayam bàyyi moom moo ko moom moom itam nañ jële ci alal bi di ko di ko jox ndaw si di ko dundal di dundal ndaw si di di di ko wodd parce que fi baayam waroon taxaw moom moo fa war a taxaw parce que moo doon alal ji dégg nga doonte liir la nag doonte la walla ki nga xam ne walli waliyi ki nga xam ne moom mooy tuteur bi tuteur xale bi ah moom moo méngoo alal ji moo yor alal ji moom itam na dépensé alal bi ci ci ndaw si misle dalik dégg nga mooy mislu abbi dégg nga min a risque wal kiswati fa in araada fa in araada su ñoom ñaar suñu nammee fisaalan feral seen doom suñ demee ba bëgg feral seen doom antaraadin dañuy jubo wata shaawurun ak diisoo dégg wax ji suñ demee ba doom ji war a fer nañ waxtaan ñoom ñaar waaye jékki-jékki feral doomu jàmbur kenn du ko def seyri nangu ko ah su doo deux ans bi motee da ngay ñëw ci baay baayam ne ko ah deux ans bi mot na dama ko bëgg a feral ngeen waxtaan ci ba jubo moom fer feram moom mot na am na ñoo xam ne dañuy feral avant avant avant deux ans bi su xale bi su doyloo ci nàmpa ah avant deux ans yi mun na fer su ko defee nag ci feral ga da ngeen ci waxtaan ngeen diisoo ci ba jubo am na ñoo xam ne dañuy xëy rek dem fa feral sa doom ah moom koy feral naa ko yóbbu naa ko boo paree na indi li ma koy jëndalee céréal ak indi ma jëndal ko meew loolu waroon nga ma ko wax ñu waxtaan ci fin du mois bi mu ma calculer waale ko jëndaale ko du noonu waaye soo jëlee feral jékki-jékki rek feral sama doom ñëw ne ma indi te calculer woo ma ko di mun na indi problème moo tax lépp looy def ah diisoo de cee baax ba ngeen juboo ci kañ nga ko bëgg feral bëgg feral jour tel de laa ko bëggoon feral déedéet bàyyi ko ba weer wi di ñëw fekk euh, sama bor yi wàññeeku na ma dem hmm, euh, préparé programmé ko noonu la ñu waxtaan waaye jékki-jékki rek feral naa ko léegi nag jox ma ma dem jëndi li jox ma ma dem jëndi li te man programmé wu ma ko doo ma indil coono voilà loolu moo tax balaa mooy feral war ngeen waxtaan antaraadin ngeen dëppoo ci feral ga min huma ci ñoom wata shaawurin ak diisoo bayna huma falaa junaax déet bakkaar alayhima di leen war ñoom ñaar fi zalika ci feral ga su fekkee ne d'accord nañu waaye ne aratum su ngeen nàmmee yéen bàyyi an tastardiu ngeen yóbbu seen doom yi nàmpale keneen nàmpal leen ah awlaadukum seen doom ngeen dem yóbbu ko ci keneen mu nàmpal loolu dafa amoon de dafa amoon ci arab yi danga am sa euh, sa jawar am doom ba pare yéen a ngi nekk wàll fase nga ko nga ne dama bëgg yóbbu sama doom dama koy nàmpali dégg ñu ne ko fan nga koy nàmpale maa ngi koy nàmpale dem bëgg naa daal mu dem ci Euh, séeréer yi ñu nàmp fa parce que dañoo am jom nàmpi kajoor ndek dañoo dañoo am xel wala dama bëggoon ñu nàmpi tukulóor yi nàmpal ko ndax am nañu euh, xam-xam wala yooyu dafa amoon wala dama bëggoon ñu ñu nàmpali ci lébu li lébu yi parce que dañoo am njàmbaar moom mu nàmpe foofu loolu loolu dafa amoon su ko defee nga yëg ko jë yonent bi sallallahu def def nañ ko lool bi mu juddoo dañ ko yóbbu ci xalimatu saadi ak umma umma aymana ñoo ñëpp nampal nañ ko fa tabaarakallah du noonu loolu dafa am ba léegi soo ko bëggee léeg-léeg ñu yóbbu ko <laughs> orphelin xaw ma nan waaw kay ñu nampi fa wàll ki yooyu mel noonu yooyu dagan na dagan na dagan na nga seet famille boo xam ne C'est jikko rafet na seen jikko rafet na nga ne ma sama juste parce que nit lu mu namp lay fort ci moom waaw su nampee njàmbaar jàmbaar lay doon su ña nampee bëqat itam bëqat lay doon rek soo ñëwee rek mu daw su nampee jom itam su nampee may xam-xam kazalik dem sama doom ñu waaye dafa doon am waaye de bàyyi sa doom ni muy muy wandeelu rek ah baaxul loo ci topp euh, mu ne fa laa junaa aleykum iza sallamtum ilayhinna ma aataytum su ngeen d'accooree ci li ngeen di jox ki leen di nampalal seen doom d'accord ngeen ci li ngeen koy jox ndaw si itam am na droit am doom ba pare mu ne ko nàmpaluma ko dégg nga wax ji wuutal ku la nàmpalal sa doom duma ko nàmpal xam loolu koy waral ngeen xuloo nga fase ko fekk mu ëmb mu am doom mu ne namp dama ko nampul am na ci droit nag nampulu ma ko jëla sa doom nga yóbbu ko fi ñu koy nampal waaye man nampulu ma ko walla su ma koy nampal danga may fay dégg nga am na ci droit ah mais dañuy wax rek góor moom doom góor moo ëpp doole ci parce que dépense dépense dundal wadd yooyu yëpp ci góor la war te liir bi nag yaa koy dundal moo tax ndaw si nee ma du ko dundal mu ko dundal léegi nooy def su fekkee ne man maa la koy nàmpalal jëlal soo amee foo koy nàmp parce que xam nga tax <laughs> ndaw si feet muy nàmpal benn góor du ñëw di ko seet si pour tàkk ko te balaa muy feral dafay déformé wu dem ah dafay salte dafay déformé wu dafay kee kenn du ko soxla waaye dafay nàmpal mais soo xonte sa doom yóbbu ko rek léegi léeg mu jëlaat forme wut jëkkër yaa ko fase te bu nekku man nekkum fi de la nàmpalal jëmale ki jëmale ko ëllëg jëlal sa doom nga yóbbu ko ñu nàmpal ko man ma jël defaraat sama bopp ci marché bi laaj maa ngi ci marché bi ah. su ko defee nag ah, nga jël sa doom yóbbu ko ñu nàmpali ko nga fay moom mu defarwaat wut jëkkër loolu la koy waral wala mu ne la ah man kat du ma nekk fii di fóot di nàmpal di kii nga nekk fi sa olala ah man ma nekk fii di sonn diiran bii duma fi am jëkkër du fi am far kon tëj bi nga ma tëj mënu ma liggéey mënu ma wuti dara mënu ma am jëkkër mënu ma am ndax sa doom kon danga ma koy fay dégg nga wax ah sari na dégg la fay ko ngeen waxtaan ba jiwu dégg nga wax ji waaw loolu euh. ah waaw su fekkee ne sharia dafa wax ne xale foo fee fee fekk amul sept ku góor amul sept bàyyi ko ak ndeyam bàyyi ko ak ndeyam su demee ba am sept ans nag mu wa mu jot dugg alxuraan walla dugg école walla ki yooyu jëlal sa doom nga yóbbu ko ku góor ki waaye ku jigéen ki nag yaayam ndagam am na fu mu ko def waaye yaa koy dundal de waaye moo ko yor waaye yaa koy dundal ok waaw góor kay moom fekk amul sept ans sept ans amoo ko su demee ba am sept nag mën nga ko récupérer yàlla ne falaa junaaha déet bakkaar ci yéen isa sallamtum jébbal ngeen na jëm ci jigéen ñi leen di nàmpalal seen doom maa ataytum maa li ngeen di joxe bil maaruufi ci njëkk te wattaqullah na ngeen ragal yàlla wa alamu ngeen xam an allah yàlla basirun aji gis la bi ma taamaluun li ngeen di jëf lésina gaa yi nga xam ne wax jooju jeex na mu ne wa lésina gaa yi nga xam ne yu tawaffaw na ñu ngi dee minkum ci yéen wa yazaruuna ñu bàyyi azwaajan ay soxna dégg nga yatarabas na ñoo ñañu muñundiko bi am fu sihin ci bañ sëy arbaata ashhurin wa asharan jigéen joo xam ne sa boroom kër dafa génn àddina kooku dafay iddawu bu dee gor la dafay iddawu ñeenti weer fukki fan ñeenti weer ak fukki fan ndagam ëmbul dégg nga wax ji koo xam ne sa jëkkër dafa génn àddina dangay iddawu ñeenti weer ak fukki fan su fekkee ne ne ëmb feeñ na ci nag ëmb feeñ dootul nag eh, ñeenti weer ak fukki fan dafay toxu foofu dem ci iddatul xamli balaa muy génn ci tënj bi ba daanaka mooy il faut mu sippi ëmb ga mooy il faut mu wasin su amee doom nag idda bi jeex na mais ñeenti weer yi ak fukki fan mooy ki nga xam ne ëmbul su ko amee rek génn la su amee boroom kër ñu daldi di koy marié su fekkee ne nag dafa ëmb nag feek sippiwul ëmb gi mooy wasiniwul iddam jeexagul kooku mooy ki nga xam ne jëkkëram dafa génn àddina dégg fa isa balax na su ñu demee nag ba àgg na seen seen idd jeex falaa naa déet bakkaar aleykum ci yéen yéen tuteurs yi mais kilifa yi fii ma faal na fi anfusihin léegi nag ndaw si bëgg na lettu bëgg na fuddanu bëgg na du diwu nga ne ko déedéet doo fa diw parce que démb rekk sa sa sa jëkkër génn àddina nga nekk fii di sa lettu ak lu ci sa yoon jeex na daal tënj na daal jeex na jeex na amoo lenn loo koy wax bàkkaar amul su génne tey ci guddi génne tey ci guddi su bët setee mun na woo woo kii mun na dem salon hmm? mun na dem salon woo fuddënkat bi dégg defaru ba ba ba ba ba yànj léegi nag yow sa jabaru mag la woon sa jabaru rakk la woon sa nga commencé bëgg fiir ah yow teel nga Eh, yow lu ci sooy yoon soo ko soo bëggee nga labat ko soo bëggee ngeen sëy su buggulee nga bàyyi ko mu wuti wuti jëkkër nekk fa di fuutandiku rek ah day xaw ah hmm. rakk ji jël ko waaw dara newu ci dara newu ci gis nga nag loolu moom mu ngi am ci mu ngi yem ci dee feek mu ngi dund loolu munu ne munu ne waaye dee moom je moo jeexal lépp su dee li koy li tax ñi koy def des fois ndaw si dafay new sëy si si kër gi mu nekk foo baax lool ma am foo njaboot te soo ko bàyyi mu dem day àndaale ak njabootam ni ñu ko yare doo ko xam te yow yow kii dee yéen a bokk ndey ak baay doomam mooy sa doom balaa nga koy ngay bàyyi nga koy bàyyi keneen di ko takk mun na am ñu torturer foofu say doom te du la neex wala ñu yare ko yar bu la neexul ñu ne ko du génn kër gi kon rakk dina ko jël rek mu toog ci kër gi loolu nag ndaw si koy jiide ndaw si mu ngi amee jëkkër ci ci biir séyam jigéen ci biir séyam lay ame beneen jëkkër day sëy ci biir kër gi sëy sëyin woo xam ne ñépp a koy sob goro yi duñ bëgg mu génn kër gi euh, magi jëkkëram ak rakki jëkkëram ñoom ñépp duñu bëgg mu génn ndax baaxam su ko defee ñu dañuy xaru ni naan du du génn kër gi moom kay diw na ko jël rek diw su bëggul na diw jël maay du génn kër gi soo ko génn kër gi mu dem sëyi feneen su sëy demee sëy ji feneen say doom tasaaro du noonu waa kay loolu koy waral balaa caada kon su ko defee ñu teg su seeni baaraam boo ëllëg incha allah euh, ñu ngi sant ñi doon déglu ñëpp di leen ñaanal yàlla di sakku ñaan ci ñoom di wax ne yàlla nañu yàlla defal siir ak tawfiq tawfiq yàlla defal ñu wér ak wérle yàlla dindil ñu fi feebar yi fi am macha allah yàlla wéral ñi feebar ñi ñi ci génn àddina yàlla na leen yàlla jéggal ñi ko amagul yàlla na leen yàlla musal ba duñ ko am yàlla may ñu jàmm ak xéewal yàlla nañu yàlla nangul suñuy koor bi jaay saydi rujuj sallallahu alayhi wa sallam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu